jafe-jafe yi mi ngi si biir PDS bu Touba li ko waral bokk na si gis nañu ni kat tëdde njaaxaanaay amu fi te ki di dut baaxam mooy Saliou Dieng mi jiite wàllu structure yi ndaxte taxawaayam kat jàpp nañu ni nekkul lu maanu ginnaaw bi ñu gisee nii dafa jël ay joge ñaaleem fii jox leen ay poste yu nu yelloo loolu bu ñu sukkandikoo si Mamor Sarr di membre di directeur nekkit njiitu union jeunesse travail du PDS bi nekk Touba ñu gën ko xam si UJTL ginnaaw assemblée générale bu nu amaloon si doon yëkkati kàddu yu ni mel nit ki mënoo ne da ngaa sanctionné Ndiogou Dieng ndax daa boycotté ndigalu parti bi bàyyi ay xale yoo xam ne dañoo boycotté liste bi ñëpp teg seen bët nga leen defal sax ay promotion loolu dañ naan lekk xaalis bi APR dem fu ne ñu dugg fa ba pare ñu wëlbatiku di leen bëgg a def ay mandataire loolu dañ ne dañ koy dàq dañ koy ñaawlu loolu mooy point bu njëkk bi point bu ñaareel bi mooy chargé des élections bu parti bi muy Cheikh Dieng dafa war a am mat goo xam ne day jël ay responsabilité di consulter base bi balaa moo produir benn notification bala ma balaa moo nommé kenn mandataire daa war a laaj base bi ba pare waaye déglu Saliou Dieng wala boog doon bouton Saliou Dieng Saliou Dieng fu mu ko tourné mu jëm fa loolu lañ leen a dakk te na jël ay responsabilité am di consulter base bi bala moo jël yenn décision yi ndax décision yi mu mujj jël lépp Saliou Dieng moo ko dicté te jàpp naa ne Cheikh war naa dépassé foofu na mat matu boppam wuyu liñ koy wootee. ndaw yi nag nee nañu kat sax maslaa moom defuñu ko lañu bëgg mooy Saliou abal leen ndaxte gis nañu ni kat lu fi yàqu moom la ba moo waral nag kilifay parti bi la ñuy sàkku nu jël décision bu nu mel si mu gën a gaaw a gaaw ndaxte mënta ñàkk bu ñu sukkandikoo seen i kàddu. ñu changé immédiatement Saliou Dieng nañ ko dàq ci poste bi mu nekk ndax ñëpp xam nañ ne mënut liñ ko dénk te mataliwut liñ ko dénk ndax moom far far loo lay def ku ko mën a teel ay dàllam. mu lay jox ay ndomba tànk ndax ñëpp gis nañ li muy bu ñëwee Touba ñu koy teeli dàllam lay seet ñun nag am nañ dignité boo xam ne duñ teel kenn daal ndax ëpp ñu jàng ëpp ñu. ñoo ngi jëm si élection législative PDS bu Touba nemmeeku nanu ni de yëngu na yëngu yooyu nag est-ce que du gën a nasaxal seen parti bii nu jàpp ni amoon nañu jafe-jafe si élection yu nu